Amadou Ba jippo jippo jippo wàccal wàccal jippo Ba get down the game is over the game is over waaw mais Amadou yow gagné sa bureau de vote Parcelles Assainies Parcelles Assainies dañ laa dóor ba nga nor waaw nga naan non mais Amadou Amadou quatre appuis lañ la dóor quatre appuis quatre appuis xam ngeen du am ba des nag mooy ministre Matar Cissé demal nga wax ak kii demal nga wax ak kii wàcce ko gunge ko këram wala mu noppalu fa en attendant nag ñuy seen affaire milliards yi parce que mosu cee tontu sénégalais yi wane nañu ne dañu bëgg am président bu loxoom set wane nañ ko clairement à 57 pour cent parce que li ñuy dépouiller mooy soixante dix pour cent des bulletins loolu kenn mënatu koo changer loolu la neer ci bopp ñëpp loolu defe naa ne lu lu lu lu kenn waru la waxtaane la sax lu kenn waru la waxtaane la fi ñuy toll mooy mooy ñu génn ñu génn célébrer suñu victoire ñuy wax aussi président Macky Sall président Macky Sall waxal ak sa candidat bi waxal ak sa candidat bi nga xam ne notre jeune président Diomaye Faye yëkkati na ko ba ci kaw ba biir bi weex mu dóor ci kon li ci des li ci des li ci des parce que nag defe naa ne moom kenn xaarul ci moom sax mu reconnaître defetam te defeta ni fii tege Parcelles Assainies Parcelles Assainies sa bureau de sa bureau de vote dañ naa lapp lapp lapp lapp lapp lapp lapp lapp lapp lapp lapp lapp ba nga nooy def kon kon looloy mbir mi nañu ànd jubilé ba fajar xam ne nag c'est la victoire du peuple sénégalais le peuple sénégalais a tourné la page Amadou Ba léegi nag boo mën ngaa góorgóorlu dem jéem a nekk opposition damal nga jéem a seet nooy diriger opposition bi waaye lii moom jeex na tàkk ñi nga xam ne nag la ñu aussi adressé message bi ngaa ñi mooy ñi yor suñu PV yi bu ñu nag di jubiler ba fàtte yi PV yi nañu ko jox les mandataires mandataires yi yéegal ko suñu victoire moom leer na léegi il faut que dossiers yi kayit yi walla ñu jébbale ko feñ ko war a jébbale kon bu leen am benn tiitaange benn stress fi ñu toll mooy célébrer dañu war a célébrer notre victoire qui est la victoire de la jeunesse ñu dédié ko aussi ñi nga xam ne ci xeex xeex moo tax ñu am bés bi te ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan ñoo ñu dañ leen di ñaanal ba faw yàlla xare leen àjjana parce que mën nañoo jàpp ne ci jaar lañu dee am na ñu yaakaar ci ñoom kon la jeunesse vaillante du Sénégal vaillante cette victoire est la vôtre ngeen ànd ci nag aussi ak seen yaay yi seen yaay yi desuñu ginnaaw de seen ndey yi desuñu ginnaaw de voilà kon euh, defe naa ne foofu la ñu toll foofu la ñu toll encore une fois nous demandons aux autorités de rapidement officialiser notre victoire qui est sans contestation possible 57 jëm 58 pour cent foofu lu ñuy lam-lamee Amadou Ba kon Amadou Ba. Jippo, game is over. It's your time to get out. Amadou Ba, get out. looloo ñu li fi